njaay ma dematul defatul dara ndékki laa ngi si même chose dañuy faraat moom koy lépp la téye billaay ndekki bi ba client yi ñoo ngi ñëw waaye non non non faraatu rek par benn benn ak ñaar yaa ma a xam feeru bee tax mais rek yor borom kër yor kër loolu tamit moo ñu teree toog ñu gis ne tamit booy jaay da ngay nangu xaalis waaw léegi euh, gisoo ne tamit euh, dafa gënoon nga loolu nga jo nga keneen di nangu xaalis yow ngay jaay parce que après da ngay laal mburu bi ak xaalis bi loolu tamit wóorul nga foog ne loolu tamit gënul waaye loolu tamit gën na waaye si dañoo yor suñu matuwaay di raxas suñuy loxo affaire yooyu ak suñu interjabel yaa ma gën xam la loolu mooy problème bi sa tamit eh, ci kër gi tamit yéen a ngi jël matuwaay bu baax a baax ah, waaw kër gi moom macha allah moom impact sabu yaa ngi fa raxas xale yi balaa ñu añ dañuy raxasu balaa ñu ree dañuy Belain sama, yi si mën suuf bu leen sang sax dañ tuh apa? ndox dañ ci def ak javel yi ci matuwaay baax moom macha allah ñun nag place ndékkikaay yi fu mu toll nii booy ñëw sax pour ndékki si da ngay jël kalandoo 250 door a ñëw fi pour ndékki te booy ñëw sax da ngay woote te 7 heures ngay génn bu njëkk bi dañ daan teel a 5 heures pile daf ñu daan fekk suñu bërëg liggéeykaay mais fu mu toll heure yi ñu toll pour nga dem sa place liggéeykaay léeg-léeg une heure moo la fay fekk dañoo arrêté sax liggéeyatuñu liggéeyatuñu fayatuñu location borom kër yaa ngi taxaw ñu ngi pour ñu am problème déplacement rek dañu am problème waaw Macky Sall nag bu ñu mënoon dimbali ci problème location bi dimbali te yàlla tax ak problème courant bi loyer bi na te kenn xëyu patron yi tëj nañ seen société fayuñu kenn dañuy daw seen grave pour maanaam ñi fay ñu si xaay pour ñu mën a fay borom kër yi loolu tam neexum bu Macky Sall bu ñu si mënoon dimbali location bi nañu ci dimbali ak courant bi ak ndox mi waaw Wah, waaw du lay fay soxna gis ne yéen ñi la ngi respecté mesures yi ñu respecté bu baax baax waaw képp ku dugg moom ku ne pharmacie moom par trois trois trois personnes personnes ñun ñooy fi dugg quoi du am ay rassemblement non non non fi fi fi di ñëw day raxasu waaw raxas dugg nga dugg pharmacie bi da nga raxas Tabora boo raxasoo ba pare da ngay jox kii nas ko pomp say loxo bu mu set nga dugg jub yow tamit boo jubee boppam da ngay gënaat après gënaat si bu quoi comme comme comme ni ko ni ko Aminata Tànja waa ñoom tamit ñu ngi bàyyi xel si xaalis bi ñuy sama Merci eh, beaucoup.